No, Michael, Michael, Michael, Michael. Michael. Michael. yoon yoon yoon yoon Mate! Mate!

graye graye graye yéen boo dugal boo la ci toog rek ngeen nga ci Aïcha. waaw bañ na la ci Aïcha. Aïcha madame Mané. Aïcha madame Mané waaw. a ci bis bi. rek di sant yàlla ginnaaw bu ñu santee yàlla di julli ci sang-sang yi nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant euh, suñuy waajur depuis ci sama maam bi nga xam ne tey làqu na ba ci sama papa ba ci suñuy yaay sama yaay Fadra mi sama yaay Rakki Balle sama yaay Adama Sylla ñett yooyu ñooy sama jabaru papa man sama ñaareelu ñaareelu papa bi moo ma jur Rakib Ali awo bi nag moom moo jur papa yi Aïcha kon donc papa sama doom bàyyi la may bàjjanam ñun ñoo wàccee yaay Aïcha ci biir kër waaye nag macha allah yaay ji mu duggee ci biir kër gi ba léegi lu mu am ni du chance mérite la jigéen nee nañ jigéen booy sey bul sëyal jëkkër kese Aïcha dafa sëyal goro sëyal njëkkee sëyal jëkkër loolu moo waral mu as ba jur xale bi nekkul xale TikTok nekkul xale statut ba Sadio Mané gis ko ci penku yaayam la ko Sadio Mané fekk xale bi bañ ma sa bëj baadu la école kër ga la xam ñu yar ko teg ko ci yoon siraatal mustaqim déggal yaayam déggal papam déggal bàjjanam yi waaw kontaan nañu nag lu ma wax rek lu dul kontaan naa mënu ma wax leneen lu ma ci lu ma ci mën a teg bés moom lu mbét fu mbétte yam rek foofu la foofu rek laa kontaan la mbétte bi yam tey c'est pas parce que Sadio Mané star la déedéet c'est parce que dama kontaan si sama doom ji sama doom bi laa kontaan li ko yàlla may tey waaye nag du moom yaayam la yaayam moo liggéey li nga xam ne tey loolu moo waral bës bii lu ñu am ni yëpp ndeyam moo ko fi liggéey ndeyam bu ma commencé wax waxam tey suy ba suba maa ngi wax ndax lu mu liggéey ci biir kër gi la waaye nag comme diggante bi dafa xaw a xat xam naa ma yemale ko fii rek di leen jaajëfal yéen au nom de toute la famille Tamba aw noonu toute la famille Tamba ma leen di jaajëfal merci beaucoup. mais ban message ngay jox Sadio Mané nag mi jël sa doom. message bu may jox Sadio Mané mooy ko am na xale am na xale bu ndaw am na jabar nag am na soxna yi tamit ndax xale bu jëlee yaayam kon day sëy ba dee waaw nañu téyel xale bi rek ah sonna si xool ne ku jullite la ku yaru la ku yem ci pànk pànku ndax foofu la ko fekk moom moom fa la ko fekk gis ko ci TikTok gis ko ci internet waaw ci ko je vous remercie. merci beaucoup kontaan nañu vraiment. ñoom man ñun ñoo ñun ñoo gën a kontaan. tous les plaisirs est merci beaucoup. Ah. ma chérie bi naka la. lan nga ci ma jabaru Sadio Mané. dégguma seen dëkkandoo la seen dëkkandoo lan nga mën a wax ci moom xale bi baax yaru tey nuróog yaayam Aïcha Aïcha Tamba madame Mané Aïcha Tamba Aïcha Tamba madame Mané ah. xale bu baax xale bu yaru xale bu suñu set dox ndànk dox ndànk kenn xam ko suñu ñàkk fay demul dikkul école kër bi moom la ko xamee tey mu xewle nga ñëw nekk ci organisation bi ah, mu mel ne yamatoo leen rek ci dëkkandoo ay mbokk lañu ñun ñëpp ay soose lañu te dañ ci war a teew sax moo tax ñu teew kan Sadio na góorgóorlu rek gën li mu doon def benn nga ko def fukk te xam ne xale bu mu ko may xale bu yaru la xale bu teel la bu nuróog yaam rek séeba dee ah noo <laughs> koy wax moom ñu kontaan kontaan ba doyal dañoo kontaan ba doyal wax waxtaan xam nga xale gi ñëpp a julli kër gi ñu si ñu si mujjee jóg dañuy julli dañuy woor amul waxtu bu a julli waaw bañ nañ ba ñoo am daara si kaw kon xam nga ne fii nii ñoom fii si kër dañoo am daara si kaw kon xam nga julli lañu. dëgg la waaw